baad fa inna mimma yutlabu ixyaau chahri ramadana bihi maca alsiyaami walqiyaami walitaami dikra allahi taala wa huwa cibadatun cazimatun tadullu cala ahamiyatihi umuurun cadida minha anna allaha taala amara bilikfaari minhu wa jacalahu min asbaabi alfalaax واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ومنها أنه لب الصلاة وسرها وهي أهم أركان الدين وأقم الصلاة لذكري ومنها أن المكثرين منه ممن أعد لهم مغفرة وأجر عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما wa minha anna man dakara allaha taala dakarahu llah fadkuruni adkurkum ana inda zanni abdi bi wa ana maahu ida dakarani fa in dakarani fi nafsihi dakartuhu fi nafsi wa in dakarani fi malain dakartuhu fi malain xayrin minhum wa minha annahu akbar wa la dikrullahi akbar wa minha annahu xayaatu lqalbi wa quutu mathalu alladi yadkuru rabbahu walladi laa yadkuru rabbah mathalu lxayi walmayit wa minha anna daakira mimman yuzilluhum allahu fi zillihi yowma alqiyaama sabcatun yuzilluhum allahu fi zillihi yowma laa zilla illaa zillu wa dakara minhum rajulan dakara allaha xaaliyan fa faadat aynaa wa minha anna tarkahu yujibu alchaqaa fi dunya wal axira wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka wa naxshuruhu yowma alqiyamati ama wa minha annahu yutam'inu alqalb ala bi dikri llahi tatma'innu alqulub ñu ngi sant yàlla borom bu tedd bi subhanahu wa taala di julli ci yonentam muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi di fàttali ne bokk na ci li nga xam ne bëgg nañu di ko dundale weeru koor wi ñu nekk ak lu dul weer wi weeru koor dañoo bëgg ñu di ko dundale woor bëccëg yi di naafile guddi yi waaye di dimbalante ci sunu biir waaye bëgg nañ nag ñu bare ci lool lu ñuy tudd yàlla waxtu yépp ak jamono yépp lañ ko bëgg waaye rawatina bu ramadan dikkee tudd yàlla mu nga xam ne jaamu yàlla gu màgg la jaamu yàlla gu màgg màgg la goo xam ne liy tegtale ay màggaayam yu baree bare la mën nañ caa wax sunu boroom moo digle ñu di ko def te di ko baril wax ni it sabab la soo xam ne mën na leen a jural ak texe tudd na yooyu yoon ci alxuraan tuddee leen tudd yàlla lu bari ndax ngeen texe waaye mën nañoo wax ne mooy xolub julli mooy mbóot mi tax ñu santaane julli te julli mooy ponk bi gën a màgg ci ponki diine ji ginnaaw ñaari baati sere yi borom bi nee na taxawal julli ngir fàttaliku ma ngir tudd ma kon dañuy julli ngir tudd yàlla ndax lépp julli tudd yàlla la waaye dañuy julli ngir fàttaliku yàlla subhaanahu wa taala bokk na ci liy firnde loolu ñépp ñu koy def te di ko baril bokk nañ ci ñi nga xam ne sunu borom xarool na leen bu ëllëgee ak njëggal ak tuyaaba yu mag a màgg tudd na fukki melokaan yoo xam ne mu ngi ko tàmbalee innal muslimiin muslimaat ca mujj ga ñii tudd yàlla lu bari lool ci góor ñi ak jigéen ñi mu ne ñoom ñëpp nag yàlla dig na leen xarool na leen ak njëggal bu ëllëg yi ak tuyaaba ju mag a mag waaye kuy tudd yàlla yàlla tudd la ku fàttaliku yàlla yàlla fàttaliku ko borom moo wax ne fàttaliku leen ma wala tudd leen ma ma tudd leen yàlla nag du fàtte kenn tudd yàlla nit walla fàttalikoo mooy genn gendeku la ak xéewalam musal la mosal la fii ci àdduna bu yemal xamee mu texeel la yokk say daraja kon kuy fàttaliku yàlla fàttaliku yàlla di tudd yàlla xeeti tudd yàlla yépp tax ñuy wax nag ndax tudd yàlla xol mooy bañ a fàtte waxtu wu ne màggaayu yàlla gi ak sañ-sañam bi ak melokaanam yu tedd yi di teew ci sa kanam ay ndigalam ak i tereem di ko sóoraale ci sa lépp loolu mooy tudd yàlla ci xol waaye di ko tudd ci soo làmmiñ mooy soo làmmiñ di tudd xeeti tur yàlla yépp foo toll ñaar yëpp la ñu santaane mooy jural nit jàmb yooyu saa bu ko jàmb yi def nag yàlla di ko bàyyi xel di ko aar di ko sàmm fii ci àdduna waaye bu yemal xaame it mu jëggal ko yërëm ko am na ci xadis xudsi bu ram bi wax ne man lu sama jaam jortu ci man loolu lay def jaam bi saa yu ma tuddee ma tudd ko su beroo tudd ma fu kenn nekkul ma tudd ko fu kenn nekkul su ma tuddee ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo mu gën mbooloo mu may tuddee ndax ci malaaka yi jege yàlla dana fa tudd ab jaamam ngir jàmbaa ngi tudd yàlla ci kaw suuf kon baax na lool mbokk yi ñuy tudd yàlla lu bari di ko fàttaliku ci xeeti tudd yàlla yépp su borom bi wax na ne mu gën a rëy tudd yàlla lu rëy la lu màgg la wala ak bar lu màgg lool la waaye mooy dundal ak ruux mooy xontub ak ruux yonent bi alayhi salaam nee na misaalum kuy tudd yàlla ak ku ko dul tudd mooy kuy dund ak ku dee dafa mel ne ko nit ki tudd yàlla dib jullit dafa mel ne ruu nekkul ci moom waaye ruu ku mu nekk ci yow ngay bàyyi xel yàlla ci lépp nee na kooku mooy kiy dund kon loolu it am na solo lool mbokk yi waaye kuy tudd yàlla bu yomal xiyaamee ñépp na ci aw naaj ñi yàlla di keral ci keram bu tedd ga yow ci ngay bokk am na juróom-ñaar ñu islam wax ne bu yomal xiyaamee sunu borom dana leen keral ci bis boo xam ne ker amut lu dul keru moom yàlla bokk na ca waajoo xam ne dafa wér di tudd yàlla ba ay ronkooñam tuuru di bàyyi xel yàlla di fàttaliku yàlla xool màggaayam geeg sañ-sañam beeg dooleem jeeg ndigalam tere tereem ba ay ronkoom sottiku yonent bi nee na kooku bu yemal xamee borom bi dana ko keral fa ñëpp soxlaa ker waaye bañ a tudd yàlla mbokk yi day jur ak taxee di fii ci àdduna bu àlaxira borom bi nee na képp ku won ku ma won ginnaaw fàttaliku ma tuddoo ma dund ko naqari la lay teg te bu yomal xaamee booy dekki doo dekki waale gis ku xamul fu muy jaar ngay doon yàlla nu ci yàlla musal wàccuwaay bu am solo boobu tudd yàlla am nag doon jaamu yàlla gu rëy moo tax sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ñu ci lool jëmale ñu ci lool waxtu wu ne ci barab yu bari mi ngi santaane di digle nit ñi ñu fonk tudd yàlla wax na ci ay mbindam ne saxoo tudd yàlla lépp loo xam ne am murid mi ngi koy baril baril lu muy tudd yàlla ci gën lépp looy def di ko baril di ci sonn baril looy tudd yàlla ci gën looy tudd yàlla ci sa làmmiñ ak di ko tudd di tudd yàlla ci sa xol wax nañu ne it képp nee na képp man nee na man maay wax ne képp koo xam ne danga bàyyi tudd yàlla di tudd keneen wala leneen na nga xam ne ab dof nga boo xam ne ci mpo nga nekk daal di wax ne naka la nit ñi di fàtte mbaa ñuy sàgganee ki leen bind melal leen ni ñu mel lu ñu am mooma ndax jaadu na kenn di ko fàtte di ko sàggane wax ne ñu tàmbuli tudd yàlla mooy tàmbuli wilaaya waaye bañ a tudd yàlla fi la mbewteyam fi la mbon yam loolu lu ñu wax ci benn beneen barab mu wax ne bu ngeen bëggee mucc ci seytaane na ngeen xam ne yi muus la ci seytaane ñett la benn bi mooy nee na saxal tudd yàlla bi ci des mooy jàkka fonk jàkka ñetteel bi mooy jàng alxuraan yooyu yëpp boo ko seetloo ci tudd yàlla lay dellu rek ndax jàkka dañ fay tudd yàlla di fa fàttaliku yàlla bu ñu jàng alxuraan it alxuraan moo jiitu ci tudd yàlla yi kon day mel ne ku bëgg a mucc ci seytaane na nga fonk tudd yàlla subhaanahu wa taala tudd yàlla ci màggaay mi ak yëpp kon mbokk yi nañu xiir lool Ramadan passé la kon xeeti tudd yàlla yépp baax nag lépp loo xam ne ci tur yàlla yi la jaam bi di ko baleel ci xolom di teewlu loolu lañ soxla ndax day jaamu yàlla gu yomb nag goo xam ne ñëpp ko man barab bu ne mën nañ ko faa def waxtu wu ne mën ne ko faa def ku ne mën na koo def mën na koy def tudd yàlla ci làmmiñ ak tudd ko ci xol waaye làmmiñu kese wu waxtu xol la néew fa it nag soxla wuñ ko lu am njariñ la benn waaye ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ndigal yàlla yi dafa bari daa bëgg nga digal ma lenn loo xam ne dama cay ngooy rek mu jariñ ma yépp nekk ca mu ne ko fexeel ba saw làmmiñ di tooy xépp saa su nekk ci tudd yàlla fexeel ba saw làmmiñ di tooy saa su nekk ci tudd yàlla mbokk yi loolu bokk na ci li taxoon nag ba nit ñu baax ñëpp bokk na ci jumtuwaay yi ñu doon yare la di dajale njaboot gi ñu tudd yàlla te mu gën a màggee tudd yàlla goo xam ne dee su ko kooj li mu war a àndal ci teg teggin dañ koy booleeg moom mooy sellal gi booy tudd yàlla na yàlla rek tax bul jër aw tur naan dama koy jëfandikoo ndax ma am nàngam jàppal ni ndigal la yàlla digal ne la dee ko tudd lu bari nga di ko tudd ngir loolu di ci yaakaar yéen maa ndeem ak njëggalam loolu moom lañ ci soxla bi ci des it bu ci kooj lu ci bokkut tur yàlla lañ lay wax tuddal yàlla te sellal ko màggal ko wéetal ko waaye li mu ànd ci teggin fekkee da toog di ko def nga jublu xibla fexe bay laabit yooyu yëpp bokk na ci lii tax ñu gaaw laa nongul jëf ju baax jooju bokk yi Ramadan passé la kon ku ci nekkoon na nga ci gën a góorgóorlu ku ci nekkutoon na ko fonk te xam ne bunt yi yëpp ma ngi ci yonent bi salaam man fu mu wax ne li gën ci lu mas a wax ak kub ku yàlla ma sa yónni mooy muy wax laa ilaha illallah dañuy wax ne xeeti tudd yàlla yëpp laa ilaha illallah moo ci gën kon yu mel noonu sàbbal yàlla bàkk yàlla kañ yàlla xeet yëpp xeet tudd yàlla la lu ci bare bari sëriñ bi daxañ na ko ci biir xasida kon fonk yooyu mbokk yi jaadu na ci noonu buñ koy def nag ñu di ko teewlu waaye di ko def ngir yàlla yàlla rek tax ñu ko def jublu ci jaamu yàlla yàlla moo ñu digal ñu bari lu ñu koy tudd ñu di ko tudd ngir loolu teyit li ñuy wax ci suñu làmmiñ bañ a safaan ak suñuy jëf di tudd yàlla ci soo làmmiñ di ko kañ te boo jëfee mu nur leneen it sunu borom soxlawut ci noonu loolu yàlla noonu yàlla boole dimbali